mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, di nuyu mbokku téléspectateur u Thiénaba tv point com ah, di jiital ci nuyoo bi nag ah, la xalif général Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ko ci barke seydina muhammad sallallahu alayhi jël nuyoo njaboot gi topp ci ginnaawam yëpp di ko teg ci loxoom ñu bokk ñaan gi ak mbokk jullit yi nga xamee ni ñu ngi jàkkaarloo ak Thiénaba tv Euh, di nuyu Serigne Cheikhou Amadou imaamu ratib bu Canaba ak imaam yi mu bokkal la grande mosquée bu Canaba ak jàkk yi nekk biir Canaba ak li ko wër yëpp ñu leen di nuyu di leen jaajëfal euh, nuyu Serigne Alassane ñaana sekk chef de village ak chef de quartier yi mu àndal ci liggéey bi ak mbokku téléspectateur u Canaba TV yi nga xamee ni Euh, ñu ngi béggee saa su nekk cana ba TV mbokk yi ñu ngi amaat mbégte euh, tew fii euh, ci kanamu Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck xalif général des Tidiane de Thiénaba di ko ñaanalaat yàlla na yàlla guddal fanam wéral ko ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi toog ak Serigne Cheikhu Amadou imaamu ratib bu ba li waral lool nag ndax mbokku téléspectateurs yi ak mbokku taalibe yi ak mbokku jullit yi yu ci bari ñu ngi woote di laaj naan Baye Cheikh lan la waxagul ak euh, lan lañ waxagul ci weeru euh, korite wi euh, ci loolu nag lañ bëgg a waxtaan dañuy jël kàddu gi jox ko sëriñ ama du Seck imaamu ratib ci kanamu Baye Cheikh Ahmed Tidiane mu yëkkati ay kàddu bu paree ñu jox Baye Cheikh mu ñaan lu mu ñaan yàlla na yàlla nangu ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon Baye Cheikh Amadou ñu ngi lay ziar bu baax a baax. bismillahi rahmaani wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ali ajmahina asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taaliba yi bokki dëkkandoo yi ñu ngi leen nuyu fii ci adaratu Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck Seexu Canaba mu ngi yëkkati kàddoom di nuyu ñëpp di jaajëfal ñépp di ndokkeel ñëpp dëkk bi ak eh, li dëkk bi bokki jullit yi kilifa yi di leen ñëpp mu ngi leen ci teraangay ji nu sunu moom terale muy weeru koor nu bokk dugg ci bisimilah rahmaani ba àgg ci alhamdulilahi rabbil alamina ñuy war a julli suba ñëpp di déglu seen kilifa xëy na xibaar bi yéex na génn waaye dañ daan dajale rek sëñ bi it nuyu na leen nee na jot na xibaar yu mat sëkk ci ñu war a wari suba soxlawul lim loolu li daje ci moom lépp bi mu ko dajalee e, moo tax mu door a yëkkati kàddoom joxe na ndigal e, ginnaaw bu gërëmee jumaa ji ak waa jumaa ji équipe beeg ñi daan fil alxuraan jàkka yeeg ñëpp ak bokk jullit yi ñaanal leen yàlla na ko fekkee dem ñu bari li ci des mooy fas yéene bu nu xëyee incha allah huit heures et demi la woo ñëpp ca kër gu mag ñëpp ñu war a ànd ak sëriñ bi nañ ko daa defee joxe ndigal sëñ taala yadd ak sikarkat yi ak dégg nga ko euh, jotlikat yeeg ñëpp nañu yëgalante ni sëriñ bi joxe na ndigal incha allah bi xubatihi huit heures et demi la ñuy daje ci kër gu mag gi àndandoo wuti dàngu jullikaay su ko dee balaa neuf heures wala neuf heures nu mën a taxawal julli gi kenn ku ko yëg ku ne na ko jottali sa morom ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla nag taxawaay rafet na waaye yàlla na gën a rafet e yi rafet na waaye yàlla na gën a rafet sëriñ bi yàlla na fi gën a yàgg moom njaboot gi yàlla gën a déggoo xéewal yàlla na gën a ñëw jàmm yàlla gën a ñëw teraanga ji yàlla na gën a ñëw réseau bi ñu ngi leen di gërëm ndax lii lépp seen dimbale seen taxawaay la kon njàmme seen njàmme yaa ngi ci biir Eh, sëñ Alpha yaa ngi ci biir ñi leen di jàppale ñëpp a ngi ci biir ngeen jottali bu baax bu ngeen demee ba ngeen gën koo saraa sëñ bi nag dina lu ñaanal waaye ndigal lee daal lii bit bi dëgg dëgg dëgg mooy eh, eh, huit heures et demi ci kër gu mag secrétaire yi nañ ko yëg bu baax bu leen kenn soññi ñi war a taxaw sëñ bi nañ ko yëg bu baax huit heures et demi balaa neuf nu mën a dem ci dànk jullikaay ku ko dégg na ko jottali sa morom ginnaaw loolu sëñ baa ngi soñ ñëpp ci asakay moorum koor mi mburum koor mi wax nañ ci ci tàkkusaan sax tëjee ko eh, jànku bi waaye du tee ñu farlu ci bu baax ku ko mën a joxe ci guddi gi baax ndax bi timis jotee rek la war war bi dugg ku mën a ku ko mën a joxe ci guddi soo xëyee bala ngaa julli nga joxe ko mooy li gën eh, eh, nattale bi nag mooy masalan kuy joxe dugub na nga seet ñaari kiloy dugub ak genn wàll lu ci lu mu doon ci nga joxe ko moo gën a jàppandi bu dee ceeb ñaari kilo ak genn wàll lu mu doon ci xaalis ndax ceeb bi prix bi taxawul dugub ji prix bi taxawul kon mënuñuy nàngam la ci xaalis waaye boo xoolee ñaari kilo yi pepp ak genn wàll lu mu war a jar ci xaalis loolay bopp bi ñaari kilo yi dugub eh, ci ceeb ak genn wàll lu mu war a loolay bopp bi wala boog su fekkee jékkuwoo ko nga seet mocce bi kilo eh, un kilo eh, six six cent kilo noonu loolu mooy mooy ndigal li nu ànd nag jébal sëñ bi mu dugal ay kàddoom te ñaanal nu tàllal loxo yi nag ñaan yàlla yàlla nanu nangul te nu fekkewaat ko ay yoon yi yoon yi su billahi min asheytaani rajimi la hawla wala quwata illa billahi al ali al azimi alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahimi maliki yawmi ddini iyaka nacbudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqima sirata alladina anamta alayhim gayri almaxdubi alayhim wala ddaalina amina allahuma innana fi himaaka wa tahta liwaaka fahmina bi himaaka wansur alayna liwaaka fasrif xanaa balaaka alxaarija min ardika wa naasili min samaayika fa in tawalaw faqul xasbiya allahu laa ilaha illa wa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil asiim yàlla na yàlla nangul ñëpp fu waay jullee fu mu wooree yàlla na ko nangu taxa te dimbali ko muy foofa rek wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa maxfiratuhu nabi nee na wa maxfiratuhu jooju ku ci egg di nga am ñeen ñeen fukki yool Euh, foofu nag nee na mooy dayoob nuyoo yàlla nañ si yàlla dimbali xéer nu si asalaamaaleykum bu ñu juumee it yàlla nañ ko yàlla baal ak maa ngi koy yégalu bokki jullit yi billaay li may waxañ can xolte lii laa bëgg nu ànd nun ñëpp ndax jullit boo xam ne bii mer na nit bu ñu meroontee lu ëpp ñetti fan jàmboonte kenn tudd moroom ca morom luñ jaamoot yàlla du ko nangu feeg bàyyiwuñ loola moo tax man ku ma mere yaa koy yëg waaye man merewuma kenn denc lu ma kenn li ñaan yàlla baal yëpp.